assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi dellu di leen siyaara te di leen jégglu ci fukki fan yi nu toll nga xam ne amul yenn bis yu yàlla gën a bëgg nu ci def lu baax ci ñoom ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة maa min ayaamin ahabu ila ay an yutaabada lahu fiha min ashri dilhijja ila axiray alxadisayn bis bii nag raw ci nu war ko fonk bu baax dundal ko ci sunna si ko ñépp xame te defe ko cenam gën a rafete gën ne mate yal na yàlla dimbali ci loolu dimbali ne it ci moytu def ci ab safaan ndax ni ci tuyaaba di fuloo ni la ci bàkkaar di fuloo te tuyaaba wax nañu ne dana ci fulu ba juróom-ñaar téeméeri yoon ak lu ko kawee sax lu soob yàlla yàlla noonu yàlla dimbale ci nuy def ay ndigalam di bàyyi ay tereem ci li des ci lim nu may nu nar ko fee sax te jéggal nu bàkkaar yi démb ak yu tay innahu huwa samiul basir wa waliyu dalika wa bihi nastajiir ونعم المولى ونعم النصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير gannaaw loolu mbokki julli yi mbokki taalibe yi maa leen di jottali nu yëpp bi ak Cheikh Sidi Muxtaar ayyadahu llahu wa nasarah wa raahu wa xafidah di leen jottali ndokkeelam ci tabaski gii yàlla jagleel jullit ñi ñu di ci jaamu di ci bég yàlla yàlla nangu liñ ko ci defal te fekkloo waat na ko ay yooni yooni yoon yu nuy fekk ci wér ak tal li koy jottalil tey nag dafa aju ci warteefu ku toog jataay mu tooge tey te mooy di sàmm njàngaleem sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ak di ko leeral jamono yii dafa am ñuy tuddoo sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu di tuddoo yoonam wi te am ay wax ak jëf yuy jóge ci ñoom yu dut yu dëppoowut ak li sëriñ bu mag bi doon def doon ko bind doon ci yar taalibe yi li sëriñ bëgg ñëpp xam ko te jàpp ko nag moo di ne sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu yàlla da ko sàmm sàmmal ko yoonam wi ba lenn lëntul ci doxinam wala ci yoonam ci yàlla jaarale sàmmam googu nag mooy may gin ko may mu nit ñi ci jëfam bañ xam fam nekkoon ak la mu nekke woon wan leen ko it ci mbindam wan leen ci it fam bëggoon ñu nekk fa ñoom ak lam bëggoon ñu nekk ca yar mbooloo it mu dul jeex ci loolu kon nag lii mu fi jëf ak lii mu bind bàyyi fi ak ñii mu yar ca lam bëggoon ci yii la war a xame li nu mën a xam te war koo xam fi moom ci la war a xame it ni nu ko war a jàppe ak ni nu war a ànd ak moom deslaa yooyu nag sëriñ bi nee na liñ ci xamee te lu leer nàññ moo di ne sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu lim fi nekk lépp jaam bu yàlla buy liggéey katub yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la woon ظللت عابدا خديما للرسول من عام ايسس الى عام الرحيل دسنا ديكو جام يالا كوي ليغييل كاتو يونتي بي لي اتوم جوني اك تيمير اك بن با اتوم ген ادينا من ظن اني غير عبد الله وغير خادم النبي فساهي ku jorti ne doon naa dul jaamu bu yàlla bu koy jaamu tey liggéeykatu yonent bi ku juum la kon laajub sëriñ tubaa mooy kan tont li yomb na abdullahi wa xaadimu rasul laneen luñ ci dolli lum gudd gudd ay tafaasil rek lay mën a doon liggéeyam it yeesal lislaam la woon te mooy jubbanti niñ ko jàppe woon te du noona ak niñ ko daan dunde te du noona diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilaahi wa bihi nu jaddidu ju dul islaamam ji deesu gërëm fa yàlla yàlla du ko nangu te diinam jooju it laa yeesal jaamu gi ak liggéey bi nag da cee sukkandiku ci alquran ak xadiis ba yàlla def mbindam moom sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu mu gënal yàlla ci lem ko xamal tem xamal nu ko gënal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maneen mbind mu dul alquran ak xadis banaytu taatiya bittibaayi bi zikri wa sunnati wal ijmaayi sama topp yàlla maa ngi ko teg ci topp ay ndigalam moytu ay tereem kem ni ñu dikkee ci alquran ak sunna te waroom xam-xam yi xam alquran ak sunna te topp ko daje ci ci yi jaamu yàlla googu it ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ko yàlla yu fu sori jagleel ko may yu bari yu saahir ak yu baatin yum wax ak yum waxul anaalani kitaabu rabbi sirra bihi yubaahi dul baraaya al gurra qaala liya alqur'aanu maa laa adkuruh min minanin min xayri rabbin ashkuruh téeréb sama borom bi may na ma mbóot moo xam ne boroom bindee fii da ci won di ci wan kàttanam jaamam yu tedd yi nga xam ne ñooy jëf jëf yu tedd yi alxuraan andil na ma ci xéewal lu ma dul wax te lépp di yiwu borom bi nga xam ne moom lay sant sëriñ bi nee na lii mu jottalul mooy li wér ci la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu bëggoon nekkoon ci la yoroon ñam yoroon nun ñii it ci lañ fekk sunuy waajur kon nag war na noo maase xam ne képp ku wax lu wuute ak lii waxi boppam la wax ju mu ci xalaatu boppam wala xalaati kaneen wala ñeneen te mbirum diine nag deesu ci wéye xalaat ak xelum kese wala ay yëg-yëg waaye ci xam-xam lees ko war a teg ak ndigal sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla mu taxawunu ñun ñëpp te may nu tawfiq ban tënku ci njàngalem sëriñ bu mag bi radiallahu anhu moom mi doonoon ab jaamam doonoon liggéeykatu yenenteem ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na it mi ngi ñaan yàlla defal nu ci nawet bii naataange juy doon xéewal lii mooy liñ ko doon jot lil ñu di ko ñaanal moom fan wu gudd ak wér ci anam yépp ba liggéey ci diine ji ak yoon yi di shaklin xaas lu kawe ñor lu njortam ten bokk fekke tàndu koog moom mbokki ujaar yi yàlla na leen yàlla sàmm sàmm mbokki julli yeñ fee dajeel yépp dolli jàmm ci réew mi te saxal ko fi xeexu biir kër yi am ci diggante yenn réewi jullit yi tey jàmbur dugg ci te jur du jur lu dul jullit ñi gën a néew doole ca kanam jàmbur yooyee di seeni noon yàlla na ko yàlla jeexal boole leen bañ mënata seeni noon innahu waliyu dhalika wa bihi nastajir كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته